tey lu taxoon woote bi dafa nekk ñaari point yi premier point bi ku ne xam na ni fan yi ci ginnaaw yëpp ñu ngi wax ci affaire liste benn bokk yaakaar commune Mbacké bi nga xamante ni dafa respecté wul parité loolu nag liñ ci wax mooy dañuy alerter population bi ndax ku ne xam na ni ay li ñu tënk mooy ay loi ak ay sart te jàpp nañ ni tey bu ñu demee ba nga xamante ni am na liste boo xamante ni respecté parité bi normalement dañ ko war a génne ci course bi loolu la yoon wax ndax gis nañ ni colonel Mar mi dëkk si commune Mbacké listam daf ko respecté wul moo ñu génne ko boo demee Moustapha Guirassy mi dëkk Kédougou listam dafa respecté parti moo ñu génne ko nit nag bu fekkente ne da nga bëgg a jiite am réew wala nga yore am réew ngay dox ci justice bëgg ñëpp bokk yam tolloo lépp lu jaarul lu nekk da ko war a maanaam combattre loolu moo waral en tant que euh, membre de commission de loi Assemblée nationale en tant que le coordonnateur départemental Bokk Gis Gis en tant que le tête de liste coalition Bokk Gis Gis dañ fas yéene porte combat bi ba nga xamante ne li ñu si yoon may ñu ko jël moo xam mu dem ñu bàyyi ko mu dem ndax dégg naa ñu ni dañoo juum mais même bu ñu juumee te yoon ne fi même bu ñu ko bàyyee mu dem bu ñu àggee ba tribunal ña ña fa nekkal ñu def ay loo xamante ni ci list bi. ay signalisation ba nga xam ne bu ñu demee cour de appel bu cees dañu ani liste bi même bu liste Benno Bokk Yaakaar gagné commune u Mbacké Galaba du nekk maire Mbacké kooku dama koy wax ci kaw ñëpp xam ko liste bi bu ñu ko bàyyee mu jàll bu gagné du ñu nekk maire ndax dañuy attaqué list bi te bu ñu ko attaqué yoon ñun lay jox dëkk bu fekkente ni ñoom deltuñ ginnaaw dindi ko même bu ñu perte ñi nga xam ñoo nekk ci liste proportionnelle bi du ñu nekk ay conseillers ndax du tey ñu attaqué ko loolu mooy li nga xamante ni mooy lu wér ndax réew mi kenn mënu ko yore ci comme nii muy doxee nañu respecté justice mais nañu doxal yoon liste bi amul parité ñaari jigéen la tegale nañu dindi maanaam loolu nga xamante ni mooy seen liste ñu bañ a bokk ci course bi Mbàkke ak département bi yëpp nañu xam ni même bu ñu woteelee liste benn bokk yaakaar dañuy sànni seenu carte mais dañuy xam liste boobu walaa balut ci course bi te waru see bokk te ñu daan combattre génn ko ci course moom mu leer beneen bi mooy comme ni ma ko laajee mooy fan yi ci ginnaaw dafa am suñu collègue député Ousmane Sonko wax na ni dañu bëgg traduire li nga xamante ni mooy euh, Macky Sall def ko haute trahison Ousmane Sonko wax na ko mais man d'accorduma ci loolu parce que d'accorduma si dama ko bëgg mu leeral mooy nit ki tamit booy wax da ngay wax li nga xam mooy li am haute trahison kenn mënu ko topp nit ci lu mu def ci acte politique haute trahison da koy def pour que nit bu waree réew mi bu waree askan wi muy man mii di wax ak yéen am na ay Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne man maa leen recevoir man jàppalañ ci mooy pour ñu combattre jàppale ma sama liste kooku am naa sañ-sañ boobu. Mhm. Ousmane Sonko am na sañ-sañu recevoir waa Benno Bokk Yaakaar te mi ngi koy def Macky Sall am na recevoir am na sañ-sañu recevoir ku bokk ci beneen parti. Mhm. pour mu ñëw jàppale ko. loolu du haute trahison bu ñu fayee institution bi bu ñu tiital askan wi aussi Serigne mun jàmm la woote kilifa dini jàmm lan woote. haute trahison kenn mënu ko topp chef l'État lu dangaa trahir. askan wi ci loo xam ne dafa jëm ci loo xam askan wi ko bokk waaye mbirum parti politique nit recevoir ko kooku du trahison te assemblée nationale bu fa ñëwee tamit du jàll ndax ñun duñ ko wate te loolu d'accorduñ si moom bi mu nekkee nit koo xam ne dañ ko doon xeex man maay ki njëkk jóg taxaw jàppale ko ànd ak moom sama xarit la barki dem gisante na ñëw na sama kër mais nag lii muy wax nii ci jëm si loo xam ne dafay tax fitna di am loolu d'accord si wax naa ko il faut que ñu dax discours boo xamante ni discours jàmm ni ko sëñ bi waxee ba nga xamante ni Sénégal dana dem ci élection ku gañu ñu xam ne gañe nga te ñun fii ñu dëkk wax na ne askan wi ñun la ñuy ànd dañ gañu incha allah loolu mooy combat bi nga xamante mooy ban nga dafa am ñaar yoo xam ne mooy la mooy première étape bi mooy cour d'appel bi bu fekkente ni déposé liste bi délai boobu noonu bu ñu ko joxee délai bi rëcc nañu waaye am na beneen délai boo xamante ne bu ñu demee ba nga xamante ñu ngi déposé liste bi ci li nga xamante ne maanaam mooy tribunal suñu mandataire yi nekk tribunal bu ñu defee réserve ci li nga xamante ne maanaam mooy benn bokkaat liste boobu noonu bu ñu ko yóbboo cour d'appel bu Thiès dañuy rëstu liste bi kooku xam naa ko baax ba ndax man mi wax yow maay vice président commission loi président de la république man mi dalal na ma palais te man damay politique dialogue bi dalal nañu ñu ñëpp moom demoon nag vice président de la république ci affaire maanaam mbas mi kenn ku nekk am nga sañ-sañu dalal ku la neex fu mu la man di neex kon pale bi pale ñëpp la Macky Sall moo fa nekk défendre su ko suñu yoon nekku si moom mais autorisation assemblée nationale bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a loo xam mbirum politique la d'accord si. bi dafa am lu ñu prévoir li nga xamante ne maanaam moom moom la ñuy wax constitution bi am lu ñu sant lépp loo xamante ni code bi sant nañu ko respecté nañ loolu. code bi li mu sant te benn bokk rek wu ko am na beneen anam boo xamante ne bu ñu si àggee bu yi jeexee foofu la ñuy sukkandiku jël nañ suñuy avocat te li ñuy wax xam nañu ko te duñu waxantu. même ñoom bu ñu jàllee dañuy indi das li nga xam mooy maire Mbacké indi délégation spéciale ndax li nga xam ne moom mooy yoon te ñoom ñu jàll xam naa ko mais il faut que ñu respecté wax ak li nga xam mooy population bi xam ne bu ñu dee sànni benn bokk yaar commune Mbacké dañuy sànni seen xob mais li liste boobu walaa balu ndax si bokkul ci course moom boo ko sànni da ngay nax sa bopp loolu nag moom combat la boo xamante ni bu ma nee la rek te dana si am ndam nga xam nga gëm ko waaw li ma si waroon wax naa ko si commission ad hoc bi bokkoon naa si li nga xam moom lañ doon toppee député yi ñu jot ko ñun gisuñ si woon trafic passeport diplomatique gisuñu ko si bi ma jotu dossier bi démission naa commission ad hoc wax naa si la ma si war a wax bu yoon doon dox Sénégal nee naa ko député yi nekk si ensemble di lambar lambar dana leen woo ba ma ko waxee ci ginnaaw suba nga dégg ni convoqué nañ leen ñu ngi bàyyi yoon war a def liggéeyam mais liñ siy xam rek mooy bu ñu si àggee bu ñu def deux fois deux mesures buñ leen dem ba pare ñu leen di def contrôle judiciaire bu fekkee ñoom ñoo tooñ bu fekkee tooñu nag ay Sénégal comme ñun suñ ko la député yéenewul leen ko mais yoon li mu si war def na si def en tout cas malgré que am na ñoo xam yéen maanaam wóoluwuñu yoon waaye damaa xam ne rek lii moom comme ñoom wax nañ te ñu ngi gëstu am nañ tamit fu mu mën a jaar su daan xam kenn ku nekk li nga def ak li nga deful